waaw donc Ousmane Diawrin ñu xamee ko si euh, sa sa sa sant normal la. waaw maa ngi tudd Ousmane Diop. naan man Noreyni. Mhm. Noreyni toujours là. Mhm. mooy la gars yi gën a xam daal. Mhm. pourquoi Ousmane Diawrin. waaw Ousmane Diawrin bi li ko indi mooy gën a nekk xale di yëngu ci activité daayira yi. suñu benn magum taal bi mag tuddee ñu Diawrin. waaw moom jëwriñ askara de passage ñu koy ziar di ko bébé. Mhm. Ousmane jëwriñ ngay gérer collectif pour le développement di jàmm gën ana mouvement boobu nan la demee si yan base yan principe ngeen tegee mouvement boobu. waaw mouvement bi ni mu demee mooy avant mouvement bi sax ñoo mos a gëm ñu mhm. boo dëkkee ci dëkk keneen di jóge feneen di la ko defaral. Mhm. moo tax ñu yàgg a teg ay action ci pour rek jëmale jàmm gën kanam. mais ñu demee ba ci biir xam ne lii dafa informel. ci mhm. lañ ci waxtaan ak ay kilifa. Mhm. woote école jàmm gën. ñëpp ñëw imam yi regroupement femmes yi jeunesse bi yëpp ñëw. Mhm. jour boobu lañ teg kuréel bi. ñu ne ko collectif pour le développement de jàmm gën. suñ nee jàmm gën nag. dafa yaatu mooy bloc 16. de poste Thiaroye à Fass Mbao. entre deux communes commune jàmm gën si Kambaaw. commune Tivaouane Diack Sao mm-hmm. li moo li collectif bi mm-hmm. euh, commune Tivaouane Diack wax nga ko ngeen tàmbali def ay action mm-hmm. si action yooyu ñu ko ci jàmm gën propre jàmm gën propre nekk concept boo xamante nii seen collectif moo koy amal ba yeneen a toll si cinquième édition ana naka ngeen def ba taxawal loolu waaw bu ñu ko taxawalee comme ni ma la ko yàgg wax rek dañuy gis ni à chaque fois ñu jógee ci nawet bi dëkk bi day am saleté bu bari moo tax chaque année ñu koy organiser bu population yëpp comme ni ma ko waxee bu ñëwee jàmm gën nekk nekkul benn coin rek bëgg population bi ko daan defee saa su ne ñëpp génn ku ci nekk ko bëgg a dëkk yaa xam association moom fa yaa xam groupement moom fa yaa xam ASC moom fa ñu génn bale dëkk bi loolooy solo bis bi daal waaw daanaka loolu mu nekk lu am solo yaakaar naa ni dajewul loolu leen benn popularité boo xamante ni bu ndaw la hmm. donc am ngeen effectif ñaata personne lañ mën a wax waaw si collectif boobu mënuñu koo xayma nag ndax ku xool ñu koy déroulé chaque année mhm. xam ne population bi yëpp génn mhm. population bi mag ñi ndaw ñi mhm. ba ci mairie sax yaakaar naa ne mënuñu bale mais dañuy génn di ñaanaan naan dañ koy rafetlu waaw waaw yaakaar naa daal population bi dañuy adhéré ci cause bi daal mu nekk lu noobul muy xëy set setal suñu dëkk yëpp incha allah daanaka ñu euh, gis si si si si dajaloo boobu noonu gis nañ ni ndaw jàmm gën ñoo leen ànd ak yéen mm. ànd ceeg ñi nga xamante ni ñooy seen i mag ñu gunge leen mm. ñu xam ni dajaloo boobu noonu yombul Mhm. mais si yan principe yan base ngeen ngeen sukkandiku ba def dajaloo boobu noonu lan ngeen gëmloo askan woowu noonu ba am ba am ba am ku coffre boobu noonu. waaw pratiquement li olof Ndiaye di wax na lu ñëpp bokk dañ koy waxtaanee. Mhm. donte ñoo initier benn affaire. Mhm. booy def dara pour population bi yow kese moom moo ko. d'accord da ngay wàcc à la base waxtaan ak nit explique leen clairement li nga xam ne moo la tax a jóg. su nekkee lu nombre rek population bi dinañ génn. ñu profité waale

ngeen nekk popularité boo xamante vraiment une popularité bu dëggu bu am doole la. ñu gis ni population bi ci euh, majeure partie bi dañuy nek ay mak ay vieux. mais su lu ñëgoo ko sa bir wax né nga nawet dañuy juggé jugee tata day am lu nek day am. pourquoi ngeen choisir def cette cette waaw bo gisé ñu choisir def cette cette comme li ma wax rek. Mhm. ndax tey jii dëkk bi. Mhm. ku ci nek xam nga ne moment bi ñu toll ñu ngi wax pandémie. ñu ne feebar bi. Mhm. te feebar yu bëri bëri na lu koy joxe tey ji ñàkk a set la te tey ji sa entourage bu setul yaakaar naa ne biir kër du mën a set mhm. te gis nañ ni xale yaa ngi dem di jàng ji mhm. suñu yaay yaa ngi def activité mhm. yow boo génnee da ngay xëy liggéey moo tax daal pratiquement à chaque fois bu génn ci nawet bi rek bu metti loolu bu ñu paree rek organiser benn set setal loolu waral chaque fois bu ñu ci yoonal rek ñu organiser benn set setal bi moom jërëjëf daa jërëjëf daa mais si biir collectif boobu est-ce que mën nañ xam ba xam collectif da am ñu nekk seen ginnaaw wala dañ ci ànd ak taxawaayu mairie bi dem ci lolu non waaw comme li ma ko waxee suñu biir wax collectif bi dafa nekk en marge entre deux communes. Mhm. mu nekkoon benn collectif bo xamné c'est un collectif qui veille et alerte. ñu ngi expliqué ñaari mots yëpp suñu concept. veille et alerte est-ce que mën nga ñëw ci ñaari mots yooyu non mhm. nga nga defal ñu ci tuuti xeyma rek. waaw bo déggee veille et alerte. Mhm. mooy saa bu ñu. gëstoo xam ne dëkk bi lii nii gisuñ ne nii jéggi na doy wala du yoon. ñu def ñi nga xam ne ñu ñooy premier magistrat de la commune. Mhm. ñu yàlla teg ci bopp moomee yi. Mhm. ñu doon expliqué leen ko ne leen lii kat gis nañ ni mu continué ci dëkk bi. bu mhm. dem mooy ñu def mais ba ñëwee ba ci biir. ku ci mel ni mairie Tivaouane Diacksao en revanche. xëy mhm. na ñun comprendre nañu concept bi ñuy demee. Mhm. ba xëy na mun nañu leen ñoo jàppee adversaire mhm. ni la fi yàlla teg. dinañ dem ba ñu expliqué leen. lu mel ni mairie Diamaguène Sicap Mbao nag franchement. ku ci mel ni le maire de passage monsieur Coumba Ndoffène Fall. à chaque fois ñu def activité dinañ dem ba ci moom toog waxtaan ci. partager idée bi mu conseillé ñu ci ba pare di ci def.

waaw xam nga si biir wax man naan la collectif bi. dafa hmm. englobé dafa nekk euh, entre en marge entre deux hmm. mairie jàpp nañu si Kambaaw mairie Tivaouane Diack Sao. Hmm. sànq a la ci biir wax. le fait que mairie Tivaouane Diack Sao pour te dire vrai demewul noonu. mais bu si Kambaaw. le courant passe macha allah. courant passe. Eh, ba mën nañu si ñaari côté yooyu noonu fan la si seen siège gën a tege ba nga xamante ni tey jii ku jugoon bëgg leen a fekk ci foofu la leen di fekk. waaw mooy li ma rek. yaakaar naa ni ku xool découpage administratif bi. Mhm. nit da ngay jàkkaarloo kër gi. Mhm. benn tali séparé leen. Mhm. ñu la kii moo ngi mairie Tivaouane sa kii moo ngi mairie Diamaguène Sicap Mbao. d'accord kon ñu ngi ci xool ñaari mairie yëpp daal. waaw loolu sax dañuy profité waale di ko waxaale. war nañu revoir découpage administratif bi. da nit mënu leen jàkkaarloo kër. soo jéggee même pas un mètre nga dugg këram. ñu leen kii moo ngi commune bi kii moo ngi commune donc de passage lan ngeen di xaar ci mairie. waaw li ñuy xaar ci mairie bi ñoom ñooy autorités lépp lu ñuy def dinañ ñëw ci ñoom waxtaan ceeg ñoom ñu jàpp si ñu ñàkk cee jàpp ñun suñu activité dañ koy déroulé te à chaque fois li may wax doomu aadama bi ci cët mooy bi nga am muy sarako ak sa peel sax war nga ci mën a defar sa dëkk waaw doo xaar ne da ngay xaar ay gros moyens wala bu la mairie jàppalewul doo def mhm. yooyu noonu doo ko xaar mhm. li nga xam ne am nga as néew war nga ci mën a def sa contribution ci développement bi. donc monsieur Ousmane Diawrigne ba tey ñu nekk 5 cinquième édition wu jamm gën propre. Mhm. concept bi dootuñu ko wax kenn. mu mhm. nekk lo xamanteni ni jamm gën ñoko ko jëlal seen bopp. Mhm. monsieur Ousmane Diawrigne ak taxawayam est ce que mën nañ xaar monsieur Ousmane Diawrigne candidat maire. waaw comme li ma wax rek collectif bi collectif veille et alerte lool mais bu ñëwee ba ci biir dañuy il faut ñu changer orientation yi. mooy parfois. boo toogee di yuuxu rek naan defal ma lii defal ma lii nii. gëm nañ ni xëy na mënoon la ko bañ a defal. bokk na si changement yi lan nga ñu mën a notable loo xamante ni day bokk si changement si maanaam. si changement yi ngay wax ni maanaam doxalin yoo xamante ni àndoowul ak yéen li ñuy liggéey. waaw mooy mooy li ma la wax. Mhm. nee la collectif bi ñu koy créé. Mhm. le début c' était un collectif qui veille et alerte. mais bu demee ba ci biir soixante-douze bi ñu doon mhm. xam nañ ni orientation il faut ñu changer ko. mooy ni ñu koy changer mooy comme ni nga posé question sànq. élection locale yi di ñëw mm-hmm. quoi qu'on puisse dire mm-hmm. mooy le collectif pour le développement de Diamaguène mm-hmm. dina ci am taxaw seetlu bu mag sëkk taxaw seetlu waaw maanaam comme li ma la wax rek pourquoi pas tey jii ñu soobu ci bu dee ñetti conseil wala ñaari conseil sax collectif bi am ko fa ñuy décider pourquoi pas sax ñu dem jëli mairie yi dem liggéey dëkk bi ndax tey jii li ngay taxaw di yuuxu naan defal leen ma defal leen ma boo demoon fu ñu koy nocé di nocc mhm. est-ce que du gën a gaaw mhm. tamit boo demoon jël miir bi est-ce que du gën a gaaw ci liggéey bi ngay bëgg a liggéey war mhm. na daal actuellement ci ci xool incha temps dinañ la ci gën a leeral dinañ la ci gën a indi lay éclaircissement incha allah donc monsieur Ousmane Diawrigne buñ déggee say kàddu mën nañ xaar monsieur Ousmane Diawrigne ak waa collectif bi si election yi locales yi nga xamante nii moo di ñëw non loolu moom c'est forcé. Mhm. ndax munoo nekk ci dëkk bi. Mhm. activité bu ne nga dugg ci. Mhm. élection locale yi nga xam ne mooy bopp moom la ñu ñëw. nga ne. c'est forcé ku la ci ku la demoon di nga am gën. élection locale yi di ñëw di ci sóobu incha allah. donc ñu am mbégte ak contentement di la dalal si euh, le thème du jour di la bàyyi tamit nga tàggoo ak waa commune bi ak waa Sénégal ala ban message ngay waa waaw xanaa di santaat waa TMP <laughs> encore une fois di santaat population Diamaguène. nga xam ne Ousmane Nouré yi moom munul amu fi maqaama boo xam ne saa boo tee ñëw xëy na population bi rawatina jeunesse bi ñoo comprendre rek li nga xam ne dafay teg tegul dara pour intérêt ndax euh, li may faral di wax maam Cheikh Fall nee na li ngay dugal si bi da koy xëy di dem ñàkk ci mhm. mais lu penc bi bokk nag da ngay toog waxtaan ko waa penc bi mhm. moo tax à chaque fois bu ñu daal liggéey ñu leen ciy woo mhm. li jëm suñu kanam nag gis nañ ko mooy rendez-vous bi le 6 ñu ñaan population bi yëpp ñu génn incha allahu rabbi de presse di ci woo presse yëpp incha allahu rabbi di soññaat autorité yi di leen xamal ne jàmm gën waaw boo ko gis actuellement bëgg nañ